الحمد لله الذي قال في محكم تنزيله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخائن ليس الجمال بأسواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب wa ala alihi wa sahbihi wa mbokk yi maa ngi nuy ñépp nag di ziyaara ñépp ziyaara boo xam ne maa ngi ci sama xol bësëm muy sëriñ Cheikh Sidi Mokhtar yàlla yàlla guddal fanam di dellu di sant yàlla ci bi ma bokkee ci ñi nga xam ne ñaar fukki at ca gannaaw maa ngi jafante ak góor gi sëriñ bi am cofeel ci moom te àndul sax nag ak xam ne dina mas a toog baraas su sëñ maa ngi dellu di sant yàlla di santale jullit yépp ci bëgg-bëgg bi ñu bëggoon te yàlla tombele ko ci xalifa bi muy ndamam mooy ñi daan sentu weeru koor tey ragal ne ñaari koor dina am ñooñu sëriñ bi noppal na leen ñi daan sentu weeru koor ñoom iyaan caam defe ne tabaski dina nekk ñaar ñooñu sëriñ bi noppal na leen alaaji abdul aziz yi mu seydi xaaji malik dafa wax ne boo nuyoo nit nekk sant wa mu wax la ko ngeen jàmm sant nga dawal ba mu yàgg nekk ban diine nga ban tarixa nga bokk mu ne roccul sa loxo dem moom noppal na alaaji abdul aziz ci xalaatam boobu dafa wax ne dama bëgg diine ji yépp nekk benn lislaam ba ma fa jógee nag dama ko nuyu nekk sëriñ bi noppal nga nu ñeme ñu maa wax ne fekkoon nga nu ci waaye noppal nga nu xam nga lu tax alaaji Ibrahima Sakho dafa ma ne ku la bootati di xeex jàppale ko mu daan xam nga lu tax boo sàgganee ba ñu daan ko yow ñaara lay war moo tax sëriñ bi ku mu jàppale rek nga daan maa ngi koy di ko ziyaar di jaarale nuyoo gi nag ci ki nga xam ne boo toogee ci wetam te déglu déglu ko ak ay noppi xol dina tudd sëriñ bi téeméeri yoon ci jenn jataay boo fa jógee dib soppeem muy seen sëriñ Cheikh Thioro maa ngi nuyu bu baax a baax ah di ndokkeel diine ji nag ci seen ndam seen ndam mooy dañ doon ñaan jàmm am ci yi xewoon ba paase kon maa ngi leen di ndokkeel maa ngi massawu ñu doon bëre te daanu di ndokkeel ñi daan di ñaanal nag ñi daan góor gi dafa mën a ne ma léeg-léeg nga am ku la jegeñ dëkk laa indil ndam loo liggéeyul waaye léeg-léeg nga am ku la jegeñ dëkk laa indil ŋàññe woo yëgul bu ŋàññe yi bare nag mën naa daaneel kilifa kon ñu ngi ndokkeel kii sog a ñëw di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko xéewal di nuyu siiseloo bi nga xam ne lu ko waaye am jël Moustapha siiseloo baax na ci làng maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu imam Mbaye Niang moom kenn moo mas a jóg ci député yi ñuy julli julli jot di julli jumaa mu jóg rocceeku julli ginnaaw ba mu nekk santaane ñu lànk maa ngi koy nuyu ci turu lislaam di ñaanal Ibrahima Sall éducation bi ñu ko jox nga xam ne ñëpp jàpp nañ ne moo gën a jafe ci ministère yi ci jamono bi yal na ko yàlla yombalal di yombalal sama jigéen Aminata Mbengue Ndiaye di ñaanal Mbaye Ndiaye barki démb bi mu ñëwee Tiwaawan waxtaanam xam nañ ne waxtaanu xol la kon ñu ngi ñaanal gouvernement bi yëpp waaye nag di beral ñaan waa Kër Sëriñ Touba seenug cofeel seenug yëgeel seenug njariñ dama wax ne képp ku am xarit bu nay nax ko ba indi ko Touba ku am xarit bu siis nax ko ba indi ko Touba bu ñëwee dina fekk kenn nit ñu tegal ko juróomi xar boo amee xar bu nay indi ko di fekk kiilifa gu mag boo amee xat bu rëy indi di nga fekk ku ku mag lépp toog ci suuf allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam